Anyways.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 te boo seetloo gone gu ci yor portable saa boo ko gisee mu beru rek la cay seetaan maar de taali ma xale yi li def ci seen portable yi di ko ci wax ak di ko ci seetaan nopp bu mu toq mu tëx bët bu mu tegee mu tuuru ma moo tax xale yi rëcc nañ ñëpp rubu xale yi góor yi nag li ñu def ëpp na ndax ab xale bu jigéen la ñu yor ay vidéo am yoo xam ne la ca xew maar de taali di ko ci chantage <laughs> kay ma xale yooyu ñu ngi wuyoo ci tuuru Ndeye Diop di ab commerçant Décam di ab mécanicien Aa ah, Diop di ab tapissier Pepe Jigo di ab tailleur Sey Fall di ab marchand ambulant ñoom ñëpp nag fi mu ne dugg nañ ni rumba ndax yoon teg na leen loxo ma ne du ngeen rëcc laa wax xale bu jigéen bu ndaw bi ñu def yëf yi nag mu ngi wuyoo ci turu MF Diop at yi toll ci fukki at ak juróom-benn cey gone yi mbir mi nag nee ñu nii la deme xale bu góor bii di Bee Diop commerçant moo dal di nax xale bu jigéen bi ba mujj yegg ci kaam ay yooni yoon nag. waay waay waay waay gannaaw jëfam ju ñaaw jooju nag ci la jëlee vidéo bi daal di ko envoyé xaritam bii di wuyoo ci turu Deecham di ab mécanicien ci noonu Deecham moom jël vidéo bi di ko menacé xale bu jigéen bi ngir mu jox ko boppam waaye xale bu jigéen bi lank ba tëdd ci naaj bi naka noonu ci la Deecham mécanicien menacé xale bu jigéen bi ne ko soo li ma wax dinaa publier vidéo yi waay waay waay xale yàqu nañ waaye nag ak santage u jooju yëpp MF Diop di xale bu jigéen bi lank ba tëdd ci naaj bi la def ma ne ko yéex nga koo def nag naka noonu nag ci la vidéo yi teeri ca site bu bon boobu di sene porno teeri ca TikTok ja ak ca group WhatsApp ja <laughs> waaye ma ne lu ko fa yóbbu nag loolooy laaj bi fi mu ne nag élément sûreté urbaine bu police centrale bu Ndakaaru teg nañu loxo seenu malfaiteur yooyu yëpp waaw góore waay ci noonu sax ci biir bi le police demee ba xam ni vidéo xale bu jigéen boobu Diop ak Bee Diop nañ ko ci benn groupe whatsapp boo xam ne ma nga tudd bëgg lu neex ay mim réew li ci gën a doy waar na fi mu ne xale bi da jële jëlee ëmb Bee Diop mi ko ko teg na te yoon teg ko loxo nee na fi mu toll nii nag pare na bu xale bi woosi nee mu takk ko def ko soxna ma ne ko yow di yéex nga koo def de nekk ci loola neex ba noppi moo tax ma waxati ko Sénégal fi mu ne ku sàggan sa doom rëcc la moo tax ma ne jàngoro ji dal réew garaaw korona la wax waa ji nag ab agent tribunal la bu nekk Thiès ji ci turu beede moom daal lañu tuumaal ne da doon sakku ab xale bu góor bu ndaw ci piri fi mu ne nag wàllum ngóor jigéen ak li ñu naan pédophilie la ñu koy toppee beede mu ñuy tuumaal jëf ju ñaaw jooju nag nee ñu xaw tuut at yi yegg ñeen fukk fi mu ne nag mbir mi mujj naa teeri ci loxo yi yoon gannaaw nëpp nëppal guñ ko doon nëpp nëppal ay seede yu bari nag jóg nañu ne beede lu nu mel yàgg nañ ko ko tuumaal Fall ndax tribunal grande instance bu Matam ak tribunal grande instance bu Tiawan yàgg nañ ko ko faa tuumaal ba ni ñu ko affecté Thiès ma ne réew mi ca tas la jëm laa la wax waaye réew moo xam ne lu ne lu ne ngay dégg waaye nag ñu ngi jëm ci événement bu mag bi la deux di le corridors di événement bu mag bi ma ne mu dooroon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz